wal taatifi bi nadratin taqdi lana bi zafari alhamdulillah alladi qaala fi muxkami tanzili wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wasalaatu wasalaamu ala eh, sayidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina wa qudwatina muhammadin muhammad ibni abdillahi rasulillah alqaa'il ana rahmatun muhdaat wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al-azim mbokk jullit yi tedd ñuy teewlu ci internet bi ki àddina wërngal këpp ñoo ngay sant yàlla bu baax mi wax ci alquran ne yónniwuma la yow yonantu bi lu mooy nga doon jëmmi yërmande ñeel mbooleem àddina yi yàlla moomu moom la sant di ñaan mu dolli ñu ay xéewal ndax moo ne ku sant rek ma dolli di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ne man dey maa yërmande gi yàlla maye kon kado boo xam ne yàlla moo ma leen may muy kado bi yërmande kon dafa mel ni ci xadis boobu dafa ñoo tekki laaye jee rek di ko wàccee ci ay ñoñam ak ay saxaabaam ak képp ku leen topp ba yàlla di pencoog ay jaamam fa tabaarakallah ñoo ngi yëkkati nuyo bu sell bu tedd di ko jagleel mboolem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah waaye xaasatan di ci xaasal suñuy kilifa diine yi rawatina xalifa généraux yi ñu ko waxee xel dana daj sunu xalifa bu tedd bi borom xolu jamaa bi muy Cheikh Ahmad Tijaan xalifa Ñas buñ ko nuyoo rek nuy nañ mboolee mu xulafaaw yi nga xëy ñu ngi ci biir réew mi toog toogaayu seeni baay wala seeni maam di ñaan yàlla may leen wér te àggale projet boo xam ne soobu nañ ca muy projet bu yëkkati diine lislaam waaye yëkkati askanu senegal waaye di nuyu kilifaay àddina yi nga xam ne ñoom la yàlla jël réew mi teg ko seen loxo di ñaan yàlla yàlla nañ réussir ndax bu ñu réussiree rek sénégalais yëpp réussir bu ñu échecgee ñëpp échec kon ñooñu nga xamee ni mooy président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko yal na yàlla defal leen jàmm defal leen ndam ci li nga xam ne eh, mooy liggéey bi ñu liggéeyal sénégalais yi te it tabaarakallaahu yàlla musal leen ci fakasalu ak féewoo di nuyu nag eh, mbooleem jullit fu mën a nekk waaye di leen ndokkeel nag ci weeru tedd wu mag wi weer woo xam ne Euh, yàlla moo ko jox euh, mboolem planète yi ndax ki ci juddu moo tax mooy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo ne yónni ma lan du nga jëm nekk jëmmi yërmande ñeel mboolem alam yi te alam yi du benn alam rek ndax daf ko def jamu mudakari salim waaw jamu mudakari salim dafa bokk ci ci grammaire arabe yi nga xam ne day def pluriel moom la ñuy wax jamu moom lu muy rafaayee waaw lu mu defati yaa noonu la ñu ko jàngalee woon aalam boo koy jëmu aalamiin dégg nga ca waxtu nasab ga ak waxtu xafar ga yaa la koy defee waxtu rafaa gu ñëwee mu rafaayee waaw ci tënk mooy nga ne zayduna wala nga ne zaydina jaa zayduna ra'aytu zaydina maratu bi zaydina kon lil aalamin mooy mbooleem planètes yi planètes yi bii ñuy dund moo ci gën a tuuti fopp fu fa mbindeef mën nekk du nit rek du jinne rek du malaayika rek du ñeenti ñeenti rek du luy dund ci jéeri wala géej lépp rek yërmande yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla bind ko yërmande googu dañ ci am cër kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weer woowu nga xam ne nii jëmmi yërmande gi ci la ganewoon àddina nga xëy ni dugg nañ ci weeram di xaar bis bi yàlla na yàlla yóbbuñu ca kon ñu ngi ndokkeel ñëpp rek fa tabaarakallaahu ah waxtaan wi rek dañ koy tënk ci ñetti tombu eh, ñetti tomb yooyu benn bi mooy gàmmu d'abord baat bi fan la bàyyi ak nii ñu koy defee ndax noonu lañ ko daan defee ndax daan nañ ko def ci jamono yonent bi wala saxaaba yi ñaareelu tomb bi mooy maam xalifa ak gàmmu ñetteelu tomb bi nag macha allah moo ñaax jullit ñi rawatina sénégalais yi ñu gën a farlu ci gàmmu kon ñetti tomb yooyu yàlla dafa lee tawfiq ak taysiir moom la ñuy waxtaanee ba ca njëkk mooy gàmmu lan mooy gàmmu ak baat bi fan la bàyyi ko baat bi arab la la olof la wala leneen ñu ne baatab gàmmu du baatab arab arab ixtifaal lay wax dégg mooy daje kon olofit du wax gàmmu day wax daje ba kon ñu ne baat bi baatab séeréer la ndax séeréer yi ñoo daan def gàmmu ñoom ñoo daan def gàmmu seen gàmmu gi bu ñëwaan nag yi rey seen nag togg seeni cere a ah, am na sax ñu ne baatab gàmmu foo la bàyyi ko cere yi ñu daan togg moo tudd cere yi ngambu léegi nag ñu oyofal ko ne gàmmu fekk cere yi am na ñu ne déedéet baat bi mooy ñoom nañ ko daan defee ñoo ko tuddee gàmmu kon ñaari riwaa yëpp wér na waaye ñoom nañ ko daan defee nag dañ ci daan fo ci tëgg di fecci def seeni aada ku nekk dégg nga gàmm ak kawoon ba léegi sax euh, ña ngi koy def gàmm ak jigi maar daan wax daan nañ wax na gàmm gi ku ci rafet jur ku ci ñaaw juruma la xam ne nii lépp rek macha allah dañ ko def seen gàmm yooyu mag ñi nag ba ñëwee gis ne nit ñi ñi ngi wàll ci gàmmu ceddo yooyu da ca def la dafa wut di ca wax lu waxu wut ah nga xamee ay bàkkaar lañ koy jëlee duñ jëlee tiyaabo mag ñi ne ah, lii nag war nañoo créer leneen loo xam ne dana rivalité ak lii pour ñu mën a xëcc nit ñi jëlee leen ci yoonu lëndëm yoonu seytaane yoonu yoonu ceddo yooyu indi leen ci yoonu diine lislaam yoonu nite ak jikko yu rafet ñu ne loolu fenn dañ ko mën a amee ci buntab yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ oote ci buntab yonentu bi te mooy nañ créer lu mel ni lii waaye soppi nañ koy nañ koy defee ñoom indi beneen façon ak beneen méthode te bàyyi fa nag baat ba ndax buñ dindeel baat bi dindil nañ ko doon defee ak lañ fa daan def nit ñi duñ ñëw ndax du am leen lu leen attiré kon faw dañ fi bàyyi baat bi ñu ne ñu oote gàmm ñun boobaa danañ ñëw ne ah nañ dem seeti sëriñ si gàmmu ga ñuy oote ndax ak ndax moo gàmmu gee benn la walla déet ndax dañuy kumpa te doomu aadama bari na loo xamee nii la ko fa yóbbu kumpa rek la buy jariñu dana jariñu buy alako dana alako mag ñi kon moo tax ñu bàyyi fi baat bi oote gàmmu ñoom bu ko defee nag di jàngal quraan kaa ñi daan tari di jongante nga xëy kii day jël baqara ba kaaf haa yaa ayn saad kii jël kaaf haa yaa ayn saad ba mi nal jëndat waasi ñuy jàng di di baagante di wër ba fajar xar ñu xadmu ñaan laata ba déwén lii bu ko defee amul sabat waaye nag eh, da danañ rey nag ñoom it togg seeni cere yooyu ba pare eh, soppi nag li nga xam ni mooy foma def ko alquran gi nga xam mooy waxu yàlla lii mag ñi ci lii lañ nekkoon kon dafa mel ni ki loolu du loo xay lu aay la ndax fekkoon mag ñi dañoo bàyyi ceeb dogo continuer seen gàmmu yooyu ba gàmmu yooyu law euh, imaginer senegal tey nan lay mel nan lay mel kon mag ñi ku leen jaajëfalut wallaay waroo leen ŋàññi xeex nañ ci diine xeex nañ ci euh, euh, pour doomu aadama doon nit amee jikko yu kawe xeex boo xamee nii wallahi kenn du ko xeex te kenn dootu ko xeex bu ko defee nag ñi nga xëy ñoom dañuy taxaw bëgg a jël benn baat rek ne xaraamal te guñ ko fenn lu dul benn xadis bu yonent bi ne wa kulla muhdathin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaala fi naar mooy lépp luñ sos boobaa Eh, bidaa la te bépp bidaa réer la te bépp réer safara ñu ne kon gàmmu yonent bi defu ko saxaaba yi defu ko ina yi defuñ ko ña ko ña ko def sa taabi taabiina yi te mooy troisième siècle wala quatrième siècle gannaaw prophète sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon loolu du loo xam ne nii ah, du sunna du farata kon luñ sos kon bidaa réer la réer safara kon gàmmu réer la kon ñi koy gàmmu xaraam na ñu leen faw da xam lan mooy bidaa waaye xamit lan mooy sunna xamit luñ sos mooy lan ak liñ sos bokkut eh, bari na loo xamee nii gannaaw yonent bi lañ ko def sos ko ci diine ji te ba léegi mi ngi dox te ñoom ñi koy wax attaqué wuñ loolu ba ci njëkk rek ma jox la ko muy naafile gi naafile sa kaaba ga kaamil alquran imaam su dey soog ay maahir ak ñooñu di ko taxawee loolu dafa xewoon jamono yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam weeru koor jot na mu ne Bilaal noddal wax nit ñi ñu dajee ñu julli naafila ci jàkka ji mu def ko ñetti fan rek mu arrêté ko bu defee ku nekk naafile këram loolu mooy dana annoncé ne da ngeen weer da ngeen war a farlu ci jaamu yàlla ci naafile waaye naafile boobu ñetti fan yooyu defoo ko kaamil de tey de defoo ko kaamil ndax boo ko defoon kaamil ñu ne ah gannaaw def na ko kaamil kon arrêté na ko te yontu bi lum arrêté te waxul ne nafi yem mën nañ kaa continuer waaye deful kaamil Seydina Omar Babacar dund na ba génn àddina def si xilaafa gi ñaari defuñ naafila kaamil wala naafila daje ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba Seydina Omar ñëwee nag ah macha allah lañ commencé nag oote def kaamil naafila ba mu paree xam lu wax ni'matul bidaatu haadihi kon fekkoon ne bépp bidaa rek dañ koy jël saakoob réer rek sotti ko ci takk yóbbu safara kon Seydina Omar du ne ni'matul bidaatu haadihi ah bidaa bi da baax na. kon loolu mooy luñ sof si diine yàqut diine dara newu ci waaye luñ sos si diine sos ak sof bokkuñ diine bañut sof mi ngi mel ni ñambaas bu niroog sër ba yàqu ko waaye ñambaas bu bu buuteeg sër ba da yàqu yàq na ko noonu nga ko mën a déggee yow wolof bi moo tax seen naaw ma def na ni'matul bidaatu haadi bidaa bi da baax na te pourtant ñoom ñiy araamal gàmmu naan bidaa la waaw lu tax bidaa dajee kaaba ga wala jàkka yonent bi def naa fi la kaamil def xat mu tëj ko lu tax waxuñ ne lool bidaa la la réer safara la loolu kon dafa xaraam xaraam kon foofu rek laa wax te mën naa indi exemple yu baree baree bari waaye temps bi waaye man li nga xam moom laa jàpp du bidaa gàmmu sunna la waaye passé na sunna gàmmu farata la nga ne ma sëñ bi foo ko teg ndax weddikat yi ma neen waaw ku may weddi moom nanga ko teg ci xam-xam ndax man man mii wax xam-xam ci laa koy teg bu wér ba ca njëkk da ngay eh, décortiquer lan mooy gàmmu lan mooy gàmmu bu dee gàmmu nga ne ma sunna la ma ne la waaw sunna la yonent bi sallallahu demal ci kutuba xadis yëpp da nga ko fa gis xadis boobu guddik altine gu nekk daan na wax saxaaba yi ñu taal ca jàkka ja ay sondeel la fa nekkoon électricité jamono yooyu mais dan taal leen ko tu yi ba da altine saxaaba yi ne ko lu tax ngay oor bi altine di tàllu ci jàkka ji ay làmp mu ne bis boobu ci laa gane àddina kon moom màggal na ko ci manière mooy lan oor na te mooy lan bis bii dama ciy jaamu yàlla sante ko yàlla ndax ci laa gane àddina man mi nga xëye nii maay yonantu yërbande bi kon ku leen a sunna la man foofu laa ko teg ma ne farata la nga ne ma ah, farata nag doon ko kon ma ne daan koy la ndax aayal la te obligation la yàlla obligé foofu nit ñi ci ban laaye sootul ahzab yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii bu ca yemoon rek ah ñu ne loolu day du obligation yàlla dafa wax ci laa ji ne man yàlla waxut ana waxut inni waaye inni ismu zaati ne inna ba pare def ci atif ne wa malaikatahu mboole ay malaakaam te malaaka yàlla yàlla rek moo leen xam moo ko ci alquran wa maa mu junuuda rabbika illa huwa mu ne sama armée bi te malaaka yi ak ruuxaani yu ne man rek maa xam seen lim mu ne ñoo ñëpp nag mobiliser naa leen mobiliser naa leen ci lan man ak samay malaayka yu salluna ala nabi ña nga julli ci yonent yàlla muhammad léegi nag jullig yàlla ak jullig malaayika ak jullig doomu adama dafa am ay différence jullig yàlla rahma la yàlla bu ne mi ngi julli ci yonent mooy mi ngi koy yokkal yërmande gi nga xamante ni yërëm googu la war a yërëm jaam yi sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi seen julli ah seen seen seen julli kooku yëkkatiku daraja yonent bi la dégg ay sabbal eh, yàlla pour yonent bi dara jaam gën a yëkkati waaye bu dee jullit doomu aadama nag kooku moom lañ tuddee ibada jaamu yàlla la yàlla na mu ne man ak samay malaayka yëpp ñu ngi julli ci yonent bi bu ca yemoon sax dañoo war a roy yàlla ci julli ci yonent bi waaye yàlla def ne gees waaye xamoon na ne ñi amul dëgg dëgg ngëm yàlla ñoom imaan dañu danañ weddi yonent bi weddi dara jaam weddi maqaamaam sous-estimé ko oyofal ko def ko euh, euh, nit ordinaire dëgg la de la waaye du nit ordinaire waaw Muhammadu basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquutu bayna alxajar bal huwa kal yaquuti bayna alxajar moo tax yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen yi gëm yàlla waxul yaa ayyuha alladina aslamu kon muslimin yi dañuy dugg waaye imaan muminuuna yi ci biir muslimuuna yi ñu néew lañ moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ñoo ñag ñooy suñ mag ñi eh, yéen ñi gëm yàlla waaye sallu loolu amar la wala du sallu julli leen alayhi ci yonti yàlla muhammad wa sallimu ngeen ñaanal ko jàmm taslimatan jàmm ju mat ba law xeetam kon ku ne gàmmu farata man foofu laa ne gàmmu faratala la sallu googu lan mooy gàmmu julli ci yonte bi sallallahu alayhi gi koy tagg yëpp di di di julli ci yonent bi am na ñoo xam bu ñëwee gàmm seen kurus la ñuy téye am na ñoo xam weeru gàmm bu teroo ña nga téye seen kurus di julli ci yonent bi guddeeg bëccëg di def ay douze mille salaatul fatihi wala douze mille salaatu beneen kon loolu du gàmm loolu gàmm la euh, euh, dundale yi nit ñi lekk di naan ngay faj aajo yi ci weeru gàmm loolu yàlla moo ko moo ko moo ko digle ci alquran Hmm? saraxe yeeg yëpp yàlla moo ko digal ci alquran kon li nga xam ne moom la mag ñi oote faratala sunna la bu dee bidaa la bidaa bu rafet la comme bidaa bi Seydina Omar wax ne bii day bidaa bu baax la biddaa bu rafet la dégg nga kon ñanaan dafa xaraam ak bidaa bu ñaaw la xëy na ñoom ñoo xam gàmm goo xëy ni eh, eh, seen gàmm waaye du gàmm mag ñi mag ñi sos ko kon dafa mel ni tontu naa la foofu ci premier boobu kon mag ñi yàlla nañu yàlla fayal mag ñi kon nag ku ñëw ci gàmm nag def fa leneen nga bëgg a taxe ne ki oote gàmm gi moo oote wala caaxaan ya wala foma wala sàcc wala njaaloo ga wala naan sàngara ga moom ba muy oote yéeneem mooy ñëw nit ñi defaru jëlee tiyaabo nit ñi yàqoo fa wala yàqulee fa mi ngi mel ni màkk gi nekk yàlla daf ñu oo nañ dem aji ji nañ dem màkk aji pourtant am nañu ñu fay raas déem de am na ñu dem màkk sàkki tax na tax tax na aj ñu nekk dafa xaraam war kaaba gi li tax yàlla ràññeelu ne góor ñi bu ñu waree suba gi ji ngoon gi na jigéen war waaye daf leen jaxase ngir xam kan mooy ki ragal yàlla bu ko mbir mi jegee ak ki ñeme yàlla li yamiza allahu alxabisa min altayibi wa yajal alxabisa baadahu ala baadin fa yarkumahu jamian fa yajalu fi mu ulaikum alxaasirun dégg nga te gàmmu yi dañ koy organiser ba nga xam ne góor ñi fi ñuy toog bokku da fi jigéen ñi toog amul jaxasoo te wër kaaba gi jaxasoo góor ak jigéen ñaa fa da ngay wër kaaba gi topp ci gannaaw jigéen bu dee yow aj makka a wër kaaba gi moo la fi indi yàlla rabbul bayti fal yaabud rabba hadal bayti boobaa doo fa xalaat di def lu bon kon kee xamee nii dañ kaa oo mu ñëw ci gàmmu ngir jëriñoo fa wallaay du fa def loo xamee dafa yàqulee kon nag buñ jël nag yooyee ñenn ñenn ñi di fa def ñu sant Cissé eh, mbay ñëw di sàcc di def yeneen nga ne ah, kon nag eh, gàmmu dañ kaa war a supprimer ndax dañ fay mooy yàlla kon nag nangam. fekkoon loolu am na ñuy dugg ci jumaa ji di sàcci kon nañ tëj jumaa yi ah am na yoo xëy ni jumaa juñ dugg daal di bees ñu fa fekk ramas génnee kon kon ñu ne kon dañ fay sàcc daal rek kon jumaa ji dañ ko teg il faut nañ arrêté seen waxi caaxaan yooyu ma ngi lu set te sell luy setal doomu aadama di ko sellal lañ ku fa ñëw na def fa leneen yow la engagé waaye engagé mag ñi te ma innamal a'maalu binniyaat jëf yëpp ci yéene la aju mag ñi ba ñuy eh, ootee dañoo yéene nit ñi defaru waaye yéene wuñ nit ñi yàqoo fa kon ku fa yàqoo yow yàqule ga yaa ko defal sa bopp